ni ngay duggee ci sëriñ bi di ko waxtaane ci moom noonu nga nekk ci xol yi xol yi sëriñ Tuubaa moo ci nekk ki yegg ci léegi nag mooy sëriñ Amsatu moom Cheikh Abdoulaye Lahad ku ne xam diggante Cheikh Abdoulaye Lahad ak sëriñ Fallu kon bu sëriñ Amsatu yegg see Mbakke toog ci wet sëriñ Abibu nu yonteeg sëriñ Cheikh Oumy a ah, loolu day kenn du li lu tax diggante kër sëñ Fallu ak kër Cheikh Abdoul Ahad rafetlu bu baax njabootu sëriñ Abdoul Fatah gii teew àndanteeg sëñ Galas ak rakkam yépp ak njabootu Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ Fallu Cheikh Abdoul Fatah jiite ko lii day Mbakke day wane ni rafet na Seydou dañuy bëgg a jëkkanteeg waxtu wi waaye meeru ki nga xam ne kii mooy meeru Pikine ji la di directeur domaine di Mamadou Gueye di taalibeeb Serigne Bamba yaakaar Serigne Fallou di kenn ci kër Serigne Touba Pikine gépp ànd naa ñoom wax leen te boo limee délégation bi Mamadou Bati Gueye jiite leen da nga xam ni. ndomb ak tànk ko waay yor wéeru ci sëriñ tuubaa wéeru ci sëriñ Touba rek mooy dëgg moo tax tubaarkàlla Mamadou Gueye yabal na fi délégation bu am solo Cerno Bandoom di ko yàlla baaxal nekk ak sëriñ bii jàpp ko jàppale ko yabal fi ay magam ak ay rakkam ñoom ñépp ñu àndandoo ñëw ku ne xam nañ Cerno ba Pikine rek la am Seydou nu gërëm nag sunu bokki Dakar yii saltige yi le ak ndey ji réew yii ak sumbur yi le seen taxawaay rafet na lool ñoom ñépp gis nañu leen kontaan nit bu baax a baax xam ni di wax saal bi yéen a ngeeg seen TV mi ngi koy def direct ci biir réew mi ak bitim réew sëñ Fallou jar na loolu gis nga nag grand théâtre lu ne mën na fee daje waaye bu sëñ Fallu duggee gën sëñ Fallu moo gën bu dul sëñ Bamba baamam baayam balaa kenn julli ñaan permis waaye sëriñ Cheikh mi wax nga dëgg bisu sëriñ Fallu buñ ci cëralee Cheikh Ibrahima Fall daa bay maam njaay borom waxee njabi def nga lu la war waaw sëñ aboo mi xalifa sëñ fallu maamam moo wane maamam baayam moo wane maamam sëñ fallu baayam moo wane Cheikh Rafaal maamam waaye sëñ aboo Cheikh Rafaal moo wane sëriñ Bamba maamam kooku aboo barak yàlla na fi yàgg te wér bég nanu bu baax ci délégation yi fi rot si yëpp sëriñ xaadim awa ba moom itam ñëw na fi nu am mbégte ci moom lool rafet lu bu baax ci taxawaayam waaye Seydou ma leeral daal Mamadou géey a ah, directeur domaine li am lépp tey nee nañ ko indi seexu mi ndax ne moom amul lu muy sëñ Abdou Karim amul lu muy kër sëñ Fallou amul lu muy kër sëriñ Touba moo tax Mamadou li ma lépp ñëw na Alaaji Ablaye jëf kàddu yi am na solo laal waaye di santaat bu baax alhaaji Mamadou Fadal Mbakke ci bis bii tey ñu duppee sunu jàmbaar ji mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Muridiin buntu yoon wi gànjaru yoon wi Serigne Cheikh jëlaat bis bii ne parrain d'honneur bi mooy taalibi Serigne Bamba muy Modou Gueye di directeur domaine waaye di maire Thiaré ji Dakaw yebal na une forte délégation bi muy délégation bi ki ko jiite mooy son premier adjoint Mor Mati Mor Mati ñaa moo jiite délégation monsieur le maire directeur général des domaines Modou Gueye bi ñu ñëw ànd nag Moustapha Gueye ak Omar Sow ak honorable député Dieng Mbacké ak Nayña ak Mbatar Dieye ak Amza ak Assane Wade ak As Mbay ak Ousseyn Si ak Bébé Diallo ak Sooda Sall ak Xaadim Thiam Lamine Souare Awa Ndiaye ak bu Diatta ak les responsables des jeunes adultes ak responsables des adultes les cadres ak Adja Koduka ak madame Bakke ñoom ñëpp ñooy délégation bi nga xam ne ñoo ànd ak ki nga xam ne mooy Modou Matignan premier adjoint au maire ñoo koy jox bu baax waayam maa ngi nuyu bu baax madame Sophie Ndiaye Cissokho di jàmbaar madame Mbakke di jàmbaari sëriñ Touba waaye di jàmbaari alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbakke Fallilou maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax xam ngeen bis bi marraine d'honneur bi soxna Baali Muntaxa la soxna Baali Cheikh Soyibu waaye borom fondation bu rëy bi fondation Soxna Bali Muntaxa démb ci guddi ñëw na kër Alaaji Sëriñ Cheikh Oumy Mbacké avec une forte délégation xam naa ko ñuy joxaar wàccuwaay bu baax Sëriñ Xaadim Lo gaydal borom ndaam moom teew na démb kër alaaj Sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Fallilu ak délégation bu rëy waaye délégation bi bàyyi ko ci xalifa Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké moo ngi nii toog muy Serigne Abibou moom Serigne Fallou mi jiite Touba ca kanam ànd ak ay doomi boppam Serigne Cheikh Oumy ngi nii di doomi sëñ Aboo mu sëñ Fallou Serigne Modou Mbacké ngi nii di doomi sëñ Aboo mu sëñ Fallou Alaaji Moustapha Baye Ndiame alaaji Modou Thian ak mbooleem délégation bi ñu àndal yépp ñu ànd ak alaaji sëriñ Abibu Mbakke mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam teewal fi sëñ Abo magam ju baax ji moom sëriñ Fallilou waaye noo ngi siyaar bu baax sëriñ Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoulaat ubeydu rabbi Cheikh Abdoulaat yokkub jumaa yi Cheikh Abdoulaat daaray kaamil Cheikh Abdoulaat sëñ Hamsatu ñoo ngi lay jox bu baax Mbakke sa wàccuwaay noo ngi siyaar bu baax jigéen ju yàlla baaxal waaye jigéen ji jàppale borom këram derrière un grand homme y a une dame kooku mooy kan aj soxna aji fay moo la aji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilu bàyyi faalu sëriñ Cheikh Oumy Mbacke soxna aji fay waa góor da jàmbaar ci bis bii am ci taxawaay wu rëy waaye Alaaji Ablaye Mbaye Pekh noo ngi jox wàccuwaay bu baax monsieur le maire de la ville de Pikine Njaay Ablaye Timbo Ablaye yebal na une forte ki jiite délégation bi moo ngi ne toog mooy Badou Ndiouk ak ki nga xam ne mooy Njawar Pay ak délégation bi ñu àndal incha allah noo jox bu waa wàccuwaay monsieur le maire Amadou Diarra ah monsieur le maire Amadou Diarra nag day génn ci alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Falilou ndax nee naa leen bis bii waa Pikine ñoo ko moom ndax ko xam Pikine xam na sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom sëñ Fallou moo defal Baye Fall yi moo defal donga yi moo dimbali donga yi moo taxaw donga yi moo jàppale donga yi moo fajaajooy donga yi alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Falilou Baye Fall sëñ Fallou bi jàmbaar ci alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom sëñ Fallou jàmbaar ci waaye noo ngi jox wàccuwaay bu baax Alaaji Mbàkke yi fay mi nga xam ne mooy représentant Serigne Touba ci Ndakaaru yebal na il forte délégation Alaaji Samba Jaw ngi ne maa ngi koy jox wàccuwaay bu baax ak Baye Ale Wañ ak Serigne Cheikh Samb ñoo teewal Alaaji Mbàkke yi fay mi nga xam ne mooy représentant Serigne Touba fii ci Ndakaaru ak ki nga xam ne moo jiite jigéen ñi muy Adja Gàmmu Jóob mention spéciale Adja Gàmmu teel ngaa ñëw lool ngay jàmbaari Serigne Touba maa ngi lay jox bu baax a baax sa wàccuwaay ana délégation bi nga xam ne moo bàyyikoo ci xalif général des Baye Fall ñu tuddee bis bii maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Amdi moo du benn Fall moo ne sëriñ Cheikh sëñ Fallu seeral la Cheikh la Fall nangu la bis waaye Cheikh la Fall ànd na yow ci bis bi alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilu Baye Fall nga Baye Fall nga Baye Fall nga Cheikh Fall Cheikh Mamadou Fall sëñ Cheikh Modou Benda Fall la yabal Serigne Modou Fall ibnu Serigne Mbacke moo jiite délégation sëñ Modou Benda Fall soxna Ndey Fall moo Serigne am di Modou Benda Fall Baye Fall bi Serigne Omar Seck général Omar Seck Serigne Mamour Ndaw jàmbaar yi maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Babacar Ndiaye Serigne Babacar Diagne Serigne Moustapha Jémme sikurullah kooku mooy soxna aji fay Baye Fallou Serigne Cheikh Oumy Mbacke Fallilu jàmbaar ji nga xam ne mooy liggéeyal alaaji Serigne Cheikh mooy Baye Fallam di jàmbaaram ah soxna aji fay alaaji Serigne Fay la ñuy wax sa baay ngay jàmbaar may jox wàccuwaay bu baax may jox wàccuwaay bu baax délégation bi nga xam ne dañuy rendre hommage baayam muy Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Fallilou taawam bu baax bi teew na muy Baye Galas yàlla na nga yàgg yàlla na nga yàgg Baye Galas Baye Galas yàlla na nga yàgg tuuf gi ci barkeb sa maam Serigne Fallou Baye Galas maa ngi lay jox sa wàccuwaay maa ngi jox bu baax wàccuwaay. madame la ministre Mariama Sarr dafa bokk ci marraine yi ak ki nga xam ne mooy Aana maa ngi koy jox wàccuwaayam bu baax ak soxna na Njaay premier adjoint au maire Amadou Diarra madame Ñaaña Njaay maa ngi lay jox bu baax sa waay maa ngi jox wàccuwaay bu baax ajartu Mariama Ba di jàmbaari Serigne Touba noo ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay ak ki nga xam ne mooy soxna Fatou Doucouré mu sëriñ Fallilou soxna Fatou Doucouré njabootam gépp teew nañu waaye ñuy jox wàccuwaay bu baax Cheikh Yaasun Doucouré Cheikh Yaasun Doucouré moom alaaji Boubacar Doucouré mi nga xam ne at mu ne mooy dalal surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci Pikine muy surafaaw yi noo koy jox wàccuwaay bu baax Cheikh Yaasun Doucouré léegi nag ngir njëkkanteeg waxtu wi damay rek duggal orateur yi ndax Serigne Cheikh nee naa la pikin moo xewle ndax Daouda Ndiaye monsieur le maire di nit ku yàlla baaxal sëñ Cheikh Daouda njaay mii ku baax la ndax lu baax nañ koy wax dafa yëkkati loo xam ne sa mag ju baax ja la ko defal muy teraanga ju rëy jox ko sa mag ji baax ji alaaji Basiiru Mbàkke mu sëñ Fàllu monsieur le maire Daawda Njaay yal na yàlla dolli sa teraanga jërëjëf bu ko defee dafa am koo xam ne doomu Pikine la muy jàmbaari Serigne Touba muy président Thierno doom Ba pikin ci laa bokk Thierno at mu ne dana def une forte délégation ñu ñëw teew ànd ak alaaj sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëñ Fallou ci bis bi Thierno Ndomba ñan la yebal ñan la yebal mbooloo mi ñu ngi leen di ziar Ousseyn Ndomba ànd na ak forte délégation naam ñëpp mënuñoo yëg ci kaw moo tax ñu bàyyi jigéen ñu ñu toog ci suuf ànd ak ñaari Moustapha yi ñaari Seydina Mohamed waaye ñoo ngi ànd ak soxna Marème Mbodj mu Serigne Aziz Abo Madiana borom Touba yëmbal Ousseynou Ndom ba nag ñëwal magam xaritam soppeem muy Thierno Ndom ba muy kenn ci président Macky sàll waaye maa ngi nuyu waa kër Amadou Jara di nuyu ñëpp waaye tey nag Ousseynou ni mu ñëwee ku ko xool xam ne ñëw ni Baye Fall la ñëw waaye bis bi tey mbégte gi ci ma Abdou Aziz ku sëriñ ku bi tuddee bis bi mu ñëwee Seeraay ma Fall xanaa soppee Cheikh Ibrahima Fall neewuñu fi daa booy maam Sëriñ xanaa maam soppee maam Seeraay ma Fall neewuñu fi maami sëriñ Abdou Sakor Fall maami sëriñ Amdi Yacine Fall eh ana soppee Seera Fall yi na ñëpp jug taxaw kenn du Cheikh Ibrahima Fall jëkkëru góor ñi Fall Cheikh Ibra bu ma nee Cheikh Ibra génn góor dëgg Cheikh Ibra Cheikh Ibra Cheikh Ibra Cheikh Ibra Cheikh Ibra eh Ousmane Ndom bis bi nga ñëw tey ci la ñuy jaare xam kan mooy Cheikh Rafal waaye Ousmane Ndom ba jërëjëf sunu délégué des quartiers cité 2 waaye ñoo ngi nuyu ajaratu Marème Mbodj mu Serigne Aziza Bo Madiana borom Touba yëmbal jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama mag sama xarit Seydou Sy mu Serigne Bamba jërëjëf Abdoul Aziz waaye noo ngi bu baax soxna maam Bousso mii toog doomi alaaji Mouhamadou Fadal Mbakke la may siyaaraat bu baax soxna maam awa caatu cheikh Mouhamadou Fadal Mbakke ba lay sa buri sëriñ Mbakke maaram teel ngeen a lool ci bis bi noo leen di jox bu baax Mbakke seen wàccuwaay waaye noo ngi siyaar bu baax ki nga xam ne moo toog ci kanamu alaaji sëriñ cheikh Oumy Mbakke Falilou muy borom banque bu rey bi muy banque microfinance kii moo ko moom muy Moustapha Sow mii toog ci kanamu alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilou maa ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay Moustapha Sow ngay taalibe di jàmbaari sëriñ Touba yaa jiite bi banque bi ñuy wax micro sen micro sen Moustapha Sow moo ko jiite banque boobu moo ko moom moo ngi toog ak le PDG Mohamed Silla taalibi sëñ Bamba moom sëñ Amsatu jaalibatu maraaxib Mohamed Silla maa ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay ñoo ànd ak Serigne Modou Mamoud Lo Gaydel ak Serigne Jili Mbacke Pofti ak Serigne Maam Cheikh Anta Mbacke Baabu ak Serigne Lamine Seck waaye gis naa fi jàmbaari sëñ Bamba muy soldaaru borom Touba muy Mohamed Samb soldaaru borom Touba Serigne Mohamed Samb soldaaru borom Touba maa ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay ngay jàmbaari sëñ Touba di jàmbaari sëñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilou noo ngi siyaar bu baax. soxna njaaya bintu cheikh mamadou fadal noo ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax mbàkke faatu fay madame Guèye moom it ànd na ak une forte délégation nuy jox bu baax wàccuwaay jigéen ji yàlla baaxal ji muy soxna baali muntaka soxna baali cheikh soyibu borom fondation bi réy bi fondation soxna baali démb ci guddi ñëw na kër sëñ cheikh ummi mbàkke mu sëñ fallu ànd ak moom bis bi kon babacar seck ana babacar seck président Babacar Seck président yow yaay ñëw noo ngi jox bu baax wàccuwaay wax naa ko léegi El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex muy Moustapha Sow mi jiite nga xam ne moo moom banque Microsen di financer jigéeni Touba yi ak jigéeni Ndakaaru yi. Moustapha Sow sa wàccuwaay ci Serigne tubaa ak sa bëgg Serigne Touba yàlla la yàlla du la dooleel yàlla fay la ci barkeb Serigne Touba. jërëjëf ñu ngi rafetlu bu baax te waa kër jëwriñ mbakki yu fay xam ngeen ni mbakki yu moom la fi Cheikh Amadou Mountakha teg Modou mbay sàmba soldaar ànd ak Samba Diaw. ak Cheikh Balla sàmb ñu ñëw teewal jëwriñ mbakk yu fay mooy jëwriñ sëriñ Touba fii ci ndakaaru rafetlu bu baax teewaayu mustafaa Sow day taalibeb sëriñ Touba ku dem pencum Serigne Basiiru ca Kawlax fa Moustapha fekk baax maam Nguuda Sow di maamam da xam ni liggéeyal sëriñ Touba rek la Moustapha Sow donn ànd ak sunu doom maamun loo waaye siyaar bu baax soxna Bali Seydou soxna Bali sëndam luwul kenn soxna Bali lépp lu ko war ci njabootu sëriñ Bamba gi ak ñii mu bokkal baay soxna baali def na ko taxaw nag doon bàyyi faalub Cheikh Mamadul Muntaxa ndamal Cheikh Mamadul Muntaxa rek la soxna baali bëgg kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax bisimilah nu jëkkanteeg waxtu wi. jërëjëf El Hadj Ablaye soxna Khadija Njaay Mbàkke moo laaji baara maa ngi lay jox sa wàccuwaay ñoo ngi may wax madame Mbàkke doomi soxna fat dukure mee muy abaa ak ki nga xam ne mooy ndey Roqaya ñoom ñii seen borom kër sama xarita maam Cheikh Mbàkke la ñu koy wax sëñ Modou Moussa falilu mooy baayam yàlla na ngeen yàgg ak moom te am ak njaboot gu barkeel ana Babacar président yow lay déglu ahousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim sëriñ muntaxa basiru mbàkke xalif général des mourides sëriñ abo mbàkke xalif de mouhamadul fadal mbàkke sëriñ amdu mboodu mbend faal xalif de maam cheikh ibrahima faal sëriñ cheikh umi mbàkke falilu responsable moral de la fédération Dahiratoul Salam et toute la famille de Serigne Falilou Mbacké. Mesdames, Messieurs, les ministres et l'ensemble des représentants du gouvernement. Mesdames, Messieurs, les chefs religieux et les chefs coutumiers. Mesdames, Messieurs, les députés et les élus locaux. Mesdames, Messieurs, les parrains et les marraines, disciples amis et sympathisants de Serigne Cheikh Oumy Mbacké Falilou. Chers invités, nous voilà encore réunis dans cette salle panoramique pour célébrer la 15e édition de la journée culturelle et religieuse dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall, Baboul Mouridine. C'est un descendant de la famille royale du Damel de Kayor, feu de Thialo Fall. Ce fidèle compagnon de Serigne est né 1855 à Diabifal dans le Ndiambo. Il tira sa révérence en 1930 et inhumé à Touba auprès de son Cheikh Amadou Bamba. Chers invités, sans transition, Cheikh Oumimba Kefalilou transmet de chaleureux remerciements à M. Momodou Gueye bien voulu magnifier le haut patronage de cette cérémonie. Monsieur Mamadou Gueye, maire de Djidé Thiaroye Kao et aussi un inspecteur principal des impôts et domaines, votre brillant parcours académique vous a classé major de la promotion à l'École nationale d'administration. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Direction générale des impôts et domaines avant de devenir aujourd'hui directeur des domaines, merci de votre présence. Chers invités, permettez-moi de vous rappeler que cette journée est un rituel perpétué chaque année par Serigne Cheikh Oumy Mbacké Falilou, qui veut manifester un signe de reconnaissance et de gratitude à l'égard des fils et compagnons de Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul. Chers invités, Serigne Cheikh Oumy Mbacké tient surtout à rendre hommage, un grand hommage, aux défunts cités ci-après. Il s'agit de Serigne Mbacké Falilou, Serigne Sadibou Touré, Almami Kamara, Mourid Cissé, Thiès, Serigne Mamadou Seck, Serigne Mbacké Diop, Soxna Maam Ya Maam Dial Ñing, Soxna Ndey Fay, Soxna Diaba Lo, Soxna Fatou Ndoye et Soxna Maam Yacine Diop. que leur dernière demeure éternelle soit Firdaus. Chers invités, Serigne Cheikh Oumy Mbacké Falilou transmet aussi de chaleureux remerciements à tous les parrains d'honneur en l'occurrence et les marraines d'honneur en l'occurrence soxna Bali Muntaha, Madame le ministre Mariama Sarr, Ndeye Yacine Samb, Sokhna Anna Ndour Gamon, Sokhna Ñaña Ndiaye soxna ajiwu Maymuna Ba soxna Ami Ndiaye Diouf Sophie soxna Sophie Ndiaye Sissoko et Cheikh Yassine Doukouré merci de votre présence des remerciements aussi transmis à tous les membres du comité de pilotage à tous les jëriñ de la fédération Daïratoul Salam d'ici et de la diaspora à tous les responsables de commission qui n'ont ménagé aucun effort dans l'œuvre de réussite de cet événement. Enfin, chers invités, Chéri Cheikh Oumimbake tient surtout à remercier tous ceux qui suivent de près ou de loin ce moment solennel et souhaite la paix à tous les Sénégalais, un pays de paix, stable et prospère. Soyez les bienvenus et soyez remerciés de votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf Seck maa ngi ziar bu baax Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Bara Khourédia ak honorable député Serigne Cheikh Thioro noo ngi leen di jox bu baax seen wàccuwaay léegi nag léegi nag maa ngi jëm ci monsieur le maire de la ville de Pikine Abdoulaye Timbo mu dalal gan yi ki ñuy jox mooy monsieur Ndiawar pay mu ñëw jox kàddoom nee na Abdou Aziz la ko jox kon Abdou Aziz ñëwal kenn ku ci ne dama lay may cinq minutes pour ñu gaaw sëriñ bi ñaan ñu doog a yeewiku auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim ki yor rajo bi na ko yokk tuuti rajo bi rajo bi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 moom la neex mu def lii mu def mu neex ñu lool di julli ci Yonent bi sallallahu bi nga xam ni ay jikko moo tax mu wàcc ñu ngi nuyu njabootu Cheikh Ahmed Bamba gi fi daje yépp mboole seen di nuyu Serigne Cheikh Mbacké di ma borom bés bi di ko beral nuyoo ci turu monsieur le maire Abdoulaye Timbo de la ville de Pikine mu yebal fi délégation waroon ñëw am empêchement dernière minute mu yebal fi monsieur le conseil spécial du président de la république monsieur Ndiawar Paye ak adjoint au maire Alioune Badara Diouk ak adjoint au maire Bassirou Sow ñu ñëw fekke si bés bi nga xam ni la ak juróom ba suñu juumul ci édition yi nga xam ni mooy bés yi ñu terale wala di fàttaliku wala di ñaanal suñu wayjur Cheikh Mahamadul Fadel mu Sëriñ Tuba muy bés bu rëy ci Sénégal bés bu am solo waaye rawatina pikin gi nga xam ni Sëriñ Cheikh Oumy bi mu jógee Tuba fala yàlla def mu wàcc fa wàcc googu mu wàcc ci Pikine di chance ci département de Pikine di teraanga bu rëy bu yàlla sagalee département de Pikine monsieur le maire Abdoulaye jiite département bi mu jàpp ni kon moom la yàlla sagale loolu moo tax musul ñàkk bàyyi xel bés bi muy bés bu rëy ci moom sëriñ Cheikh Oumy Mbacké mu sëriñ Fallu monsieur le maire Abdoulaye nee na ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bu la kenn ëppale te kenn ëppale wala ci kër Cheikhul Khadim nee na mu ngi lay ñaanal yàlla bu yàlla na nga gudd fan sut ko mag ña ndax sa taxawaay ci département de Pikine taxawaay la boo xam ne état amel na la njukkal ndax état moo am responsabilité yar njaboot gi jubal leen defar leen teg leen ci yoon jox leen ñu liggéey mais na nga ñëw pikin jël ndaw ñi. jigéen ñi tàggat leen ci yàlla tàgg leen sëriñ tubaa ñu am yërmande wàcce seen bopp nangoo liggéey nee na mission boobu mission la bu rëy boo xam ni ñoom ñi nga xam ni ñoo yor responsabilité mairie bi ak état bi yépp dañu la ameel njukkal kon ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla mu wax ni Sénégal toll na foo xam ni jataay yu ni mel dafa war a bari te yaatu ndax njëriñam mooy fi réew mi toll ñii fi nekk ñuy équilibre sociaux yi muy kër diine yi ñoom ñoo tax ba basculé wul ba Sénégal gën ay nawle réewam Sëriñ Tuubaa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko waral kon bu ñu toogee tey di fàttaliwu Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké deuxième xalifa Sëriñ Tuubaa nga dëkk pikin nangu fee dëkk am fi njaboot di taxawal lu mel nii responsabilité bu rëy boobu ñoom yëg nañu ko bàyyi nañu la xel yal na yàlla guddal sa fan wax ji du gudd ndax ñi war a wax dañu bari mbir buñ la ca wooyee boole la ca nga am ci as lëf loo ca am na la doy waaye monsieur le maire nee mu ngi lay sant di la gërëm ci yëg bi nga ko yëg saa yu ñëwee nga woo ko nekkoon na ci taxaw te fekk mën nga ko mënal nga ko sa bopp ndax amul dara loo tële ci mbir yi waaye bàyyi nga ko xel ba koo dimbale moo tax nga di ko def kon yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla yàggal yàlla yàlla sàmm njaboot gi tabarke leen wasalaamualeykum wa rahmatullah Seydou ah borom bis na boroom bis bi mooy kan mooy cheikh Mouhamadul Muntaxa yabal na doomam ju baax ji sëriñ aboo ma nga ca wetu waajuram we toog di sëriñ cheikh mi mu sëriñ fallu sëñ Amsatu Mbàkke moom sëñ Subeer it ñëw na waaye daal bu ñu séenee délégation Cheikh Mahamadul Muntaxa xel dana dal ci digganteem ak njabootu Serigne Fallou ci digganteem ak njabootu Xaadimu Rasuul kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha délégation bi yegg si na léegi Seydou su ko defee ñu jëkkanteeg waxtu wi ayca ayca. jërëjëf El Hadj Ablaye waaye damay seereel ne rek mbooloo mi maa ngi jéggalu Serigne Cheikh mi Mbacké day sant bu baax son excellence le président Macky sàll di sant bu baax. premier ministre Amadou baax waaye di sant bu baax Antoine Félix Diome waaye di sant bu baax Pape Sagna mbay ministre Aliou Sow ministre ak monsieur Gilles Marcel Antoine Sagna secrétaire général di ministre des infrastructures moo ngi koy sant bu baax a baax waaye di sant bu baax monsieur le ministre Issakha Diop waaye moo ngi sant bu baax monsieur le ministre Birima Mbangara waaye léegi laa koy wax moo ngi sant bu baax monsieur le maire Abdoulaye Timbo mention spéciale à monsieur le ministre monsieur le maire Abdoulaye Timbo waaye nee na moo ngi sant bu baax monsieur le maire Amadou Diarra wax naa ko ay yoon doomi Pikine la xaritu sëñ Cheikh la te donga yi moo loué vingt car jox ko donga monsieur le maire Amadou Diarra seriñ baa ngi sant bu baax alaaji Mbàkke yi fay représentant sëriñ Touba fii ci Ndakaaru waaye nee na moo ngi sant bu baax alaaji Modou caan représentant Serigne fallu fii ci ndakaaru waaye di sant bu baax alaaji Makhtar Thian ambassadeur itinérant bu Serigne Fallou di jàmbaari Serigne Fallou waaye nee na moo ngi sant Serigne Thierno Ndom Ba Pikine ci laa bokk waaye moo ngi sant monsieur Mohamed Samb soldaaru borom Touba di jàmbaari Cheikhul Khadim nee na sant na ko bu baax waaye nee na moo ngi sant président Abdoulaye Sylla mi defar barabu sëñ Fallu nee na sant na ko bu baax a baax waaye di sant sëriñ Cheikhouna Mbacké transitaire di taalibi sëñ Fallu nee na moo ngi koy sant bu baax a baax nee na moo ngi sant sëriñ Khadim Gueye jëwriñu alaaji Baara Mbacké fii ci Ndakaaru di jàmbaari alaaji Baara waaye nee na moo ngi sant bu baax sëriñ Chimère Diouf waaye moo ngi sant El Hadji Ba moo ngi sant Moustapha Sow moo ngi sant ki nga xam ne mooy Baye Laye Ndiaye di représentant sëñ Touba ca pikin waaye nee na moo ngi sant Cheikh mbay Guèye ak le PDG Souley Diagne di taalibi sëñ Bamba moo ngi sant bu baax le colonel Abdourahmane Ba waaye di sant le colonel Mouhamadou Bamba Sall di taalibi sëñ Fallou kooku nag dama ciy def arrêt ndax colonel Bamba Sall dafa bëgg sëñ fallu day liggéeykatu sëñ fallu di jàmbaari sëñ Fallou le colonel Cheikh Ahmadou Bamba Sall war naa mën a ne ndax sëñ Touba lañ la tuddee colonel Mouhamadou Bamba Sall jërëjëf waaye moo ngi sant ki nga xam ne mooy Cheikh Bakary Diouf ak ki nga xam ne mooy Babacar Diop ak Saliou Dione senateur ak monsieur Mamour Gaye Touba amablement waaye moo ngi sant bu baax ki nga xam ne mooy monsieur Baye Gana Cissé cha Milan ba sant na ko bu baax ak alaaji Moussa Gueye poste kër ayib di jàmbaar moo ngi nee toog alaaji Moussa Gueye Moussa nag day jàmbaar jóge ba poste kër ayib jàppale lool sëñ Cheikh ci bis bi noo koy sant ak sëriñ Cheikhouna Mbacké trading waaye balaa ma sori maa ngi jëlaat sama kaddu di ko jox waa Ndiobène ak waa Casamance délégation Ndiobène ñoom ñëpp ñëw nañu Ndiamé Diop Makhoudia Diop Aar Ndaw baara ndaw xaadim ndaw ak mbàkke lii mooy délégation njóobeen délégation bi jógee Casamance laasana bàjji ak bekke bàjji ak mbooloo mu rëy mi ñu àndal maa ngi siyaar bu baax sama doomu sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abo moom Cheikh Mamadou Fadal ci délégation baayam bi baax la bokk muy sëñ Abo mu sëñ Fallou waaye président Modou Gueye yow lay jox kàddu gi le parrain de cet événement président Modou Gueye noo ngi koy santaat bu baax a baax bis bii fonk na ko waaye jàpp na ko El Hadj mbay Mbaye Pekh président Modou Gueye yebal na ay nag yebal ceeb yegal diwlin génne suukar waaye nag teg ci alal ju bëree bëri président Modou Gueye maa ngi lay seeral ne bis bii jàpp na ko waaye fonk na ko kon président Modou Gueye la ñuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom la yebal muy kenn ci moom. di yor délégation bi moom lay bàyyee kàddu gi waa léegi soxna Yacine Doucouré egsi na léegi soxna Yacine Doucouré dafa am ci ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu waaye daf ko am ci kër Serigne Touba di daloo xalifa Cheikh na Cheikh Saad Bou waaye ar bu koy daloo seen Cheikh mi bàyyi li muy def lépp ñëw fekk soxna Yacine Doucouré moo tax soxna Yaasin Dukkure ñëw àndante ak délégation bu bari bii mu am solo kii bëgg a wax nag maamam yi ak baayam yi xam nga ni Cheikh da waaw dañuy julli rek continuer xam nga Cheikh Amadul Murtada ba muy dem cowaan kër maamam booba demul fen kooku nag Mamadou Gueye directeur domaine ki ko fi teewal di Mamadou Mati moom la ñuy jox kaddu بارك سرمدا على الذي سميته محمدا صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي النوال الوالي سيدنا الخائد للجنات جف بها خلم سلمنات Seex Fallu yaa xew na nga nu xewaale ku bëgg alaaji Fallu Mbàkke jógal taxaw nu màggal sëriñ Seex ana soppe sëriñ Seex mi Mbàkke alaaji Fallu Mbàkke yaa xew jóg leen taxaw nuy màggal alaaji Fallu baayu meen addoy sëriñ Fallu a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun wa bibni masqudin wa jahibni salaam xinnil balaa wa durra ayni wa kalam mbokki jullit yi ñoo ngi leen nuyu nuyu yéen ñi fi teew ñëpp di ñaan cheikh mouhamadul muntaka yàlla na fi yàgg te wér di ñaan bu baax sëriñ abo xalifa cheikh mouhamadul fadal yàlla na fi yàgg te wér waaye di ñaan bu baax sëriñ seex ummi Mbàkke mi nga xamante ni moo woote bis bii wooteel ko waaye juróom woowu darajaale ko moom Madou Gueye yàlla na sunu borom guddal fanam may ko wér te yokku taw féexam Mbàkke mu mel ni bis bii mënuñu ko wax te duñ tudd cofeel ndax ku gis bis bii xam ni bisu cofeel la te cofeel nag tey jii laa xam ni ndekete day mayee lu bari ku ci nekk xam na ni Seydina Muusa keroog bi muy jàkkaarloog na képp ku juddu woon ci dëkk ba di góor firaaw na jëloon na sa bakkan waaye li musaloon Muusa mooy yàlla da ko musaloon ci baatu cofeel baatu cofeel boobu mooy lam ko boolee loon ba ba ko firaaw na gisee mënul ci moom lu dul yar ko ci biir këram te mooy wa alhaytu aleyk mahabbatu minni looloo mu cëloon ki nga xamante ni mooy firaaw na Muusa ci firaaw na ba mu eggale mission bi nga xamante ni moom la yéene woon ci digganteem ak boromam su ko defee ku nekk xam na ni Seydina Muhammad alayhi salaam ku nekk xam na ni bu yoonu islaam tollee fii ummatoom di dund ba léegi yàlla seere na ni mbëggeel gu mu am ci moom moo tax mu toll fii mu toll tey ndax lépp lu ab umma defoon yàlla tukkal seen àdduna ummatu seydinaa Muhammad def nañ ko yàlla bàyyi leen fi ñuy dund loolee nag dara waralu ko dul cofeel goo xam ni yàlla amoon na ko ci Seydina Muhammad waaye nag cofeel moo taxoon maami Serigne Cheikh Oumy Mbacké mi woote bis bii demoon fa nga xamante ni mooy géej dund fa atam yem fa dund lépp dara warul ko warul cofeel ci Seydina Muhammad ba tax tey Sey Seydina Cheikh Oumy mi mën a woote tey jataay bii ñu fekk si ko fi waaye nag cofeel moo tax cër bii ci Mamadou Gueye am tey yàlla suñu borom jox ko ko ndax Mamadou Gueye am na sëriñ am na waay jiru góor waaye leeram bi mu jëkk am bi mu ko amee Cheikh Mouhamadul Fadal la ko tuddee loola nag cofeel la woon cofeel googu moo tax tey ñu wooteel kii nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadul Fadel bis dara jaalee ko ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Gueye moo tax Mbàkke noo ngi ñaan cër bii nga jox Mamadou Gueye yàlla na nekk cër buy yàgg cër buy sax cër boo xamante ni cër bu yàlla di gërëm la cër boo xamante ni cër buy mottali yéene ak bëggu président Mamadou Gueye la ndax ku nekk xam na ni barke du jëm waaye fépp fu mu jox dina fa wane kàttanam waaye ku ñëw ci jataay bii di nga xamante ni barki Serigne Fallou moo ngi ci biir jataay bi kon ñoo ngi sant bu baax Serigne Cheikh Oumy mi nga xamante ni moo nu defalal loolu sunu jëwriñ gi di Mamadou Gueye mi nga xamante ni donn na Cheikh Mouhamadul Fadal ci ay jikko te mooy lan mat njiit mat mat wasiila ndax yàlla seere na ni tabe mbaa baax mbaa lépp lu ñuy mën di wax ci doomu aadama yàlla def na ko ci jëmmam te gisu ko ku nekk xam na ni bis bi feeñal na fi ay jëf mu bàyyeekoo ci moom waaye demoowu ci benn bé benn jëf lenn rek la ci naqarlu muy ñàkkam gu mu ñàkk mën a teew ci jataay bi ndax ay ngànt te loolu doonoon yéene bu gën a rëy ci bésam kon nag noo ngi ñaan sëriñ bi nga ñaanalal ñu président Mamadou Gueye ñaanalal ñu ko ñaanalal ñu Mamadou Mati Niang mi nga xamante ni moo jiite délégation bi di loxo ndey jooram li tax ñu war koo ñaanal ku ci nekk xam na ni njaboot boo leen jiitee di doxal ci seen diggante ak ñoom di ko teg ci njub ak baax ak yéene ju sell bu la dara gaarul it cet mën na laa gaar waaye noo ngi ñaan na dajeeg barkeb wa sarri sixrin wa sarril xalqi insihimu max jinihim wa zawaati sumi yàllaahu kon ñoo ngi ñaan it yàlla na dajeeg mbóotum wa bibnu wa bibni masqudin wa jaahibni salaam xinil bala wa durraay ni wa kalam yàlla na mucc ni aw yoon su ko defee maa ngi ñaan sëriñ bi ci barkeb cofeel boobee nga xamante ni président Mamadou Gueye am na ko ci njabootam am ko ci réew réewum Sénégal am ko ci Cheikh Mouhamadul Fadal maa ngi ñaan nga ñaanal ko ci barkeb bés bi ak barkeb Cheikh Mouhamadul Fadal yoon wi nga xamante ni sóobu na ko di yoonu liggéeyal réew mi di yoonu politique ànd ci ak ñi mu ci àndal nga defal ko ci tawféexu mu daje ceeg mbóotub la Sëriñ Tuubaa waxoon ni darajati tanhu walaysa tanxafir wa man naha min al wara xafdi xufit sëriñ bi pour bañ a guddal ñoo ngi gàttal foofu kàddu yi ndax li ñuy xaar waaye nag di waxaat nga ñaanalal ñu président Mamadou Gueye waaye it mënuñoo daaneel te waxuñu soxnaam bi nga xam ne da koy jàppale ci mbir moom it yéeneem ak bëggam ci président Mamadou Gueye nga ñaanal ko yàlla mottali ko ko kon ñoo ngi sant di gërëm di gërëmaat bu baax délégation bi Ndey Njang soxna Jee euh, Mbàkke Omar Sow Chérif Abbas ak président moo Modou Batiña bi nga xamante ni moo jiite délégation bi mënuñu leen a lim limoon nañ leen ak Sada Sall seen bëgg ak seen yéene ci réew mi ak ci président Mamadou Gueye yàlla na ko yàlla mottali barkeb Serigne Touba jërëjëf. jëf am na solo lool waaye maa ngi joxaat wàccuwaay Serigne Cheikh délégation monsieur le ministre Issakha Diop wax naa ko léegi ñoo ngi koy sant waay ñoo koy gërëm yebal na son chef de cabinet.